ah nee na wasaani bu ñaareel ba awlaa moo gën a yella inda ahlil basra fi naxw na ahlu naxwi waa basra lu tax li qurbihi nee ñu dafa gën a jege yarhamukallah nee na kon li gën nga ni darabani wa darabtu zaydan jox ko bu ñaareel bi moo gën nga naan darabani wa darabtuhu zaydun boo ko rafaa darab darabani moo ko boo nasabee nee na ku ñaar waa basra neeñu bu ñaareel bi mu lañ ko war jox ndax li mu jege waxtaara tànn na xayruhum ku dul ñoom te mooy waa kuufa tànn nañu ak seen safaanu loolu nee ñu ku jëkk ka la ñu war a jëf loolu li taqaddumihi za usratin mbir muy borom mbooloo mu am kàttan nag maanaam mbooloo mu bare waa kuufa ñoo ko wax ñoom nee ñu da ngay war di wax darabani wa darabtuhu zaydun waaye waroo ni darabani wa darabtu zaydan wa amilil muhmala fi damiri ma tanaazaahu waltazim maltuzima wa amil na nga jëfloo al muhmala benn amil bi ñu niinal bi nga xam ne moom xañ nañu ko jëf na nga ko jëfloo nag fi damiri ma tanaazaahu ci damiri loolu ñu doon xëccoo niki darabani wa darabtuhu zaydun du bu ñaareel bi nga niilal ndax soo ko jëfloo woon da nga naan wa darabtu zaydan waaye ba nga koo xañee jëf ja jox ko bu njëkk ba rafaa ko muy faayilu darabani kon nag na nga ko jëfloo ci damiru li ñuy xëccoo mooy nga ni hoo nga darabtuhu darabani wa darabtuhu zaydun waltazim na nga taqoo nag maltuzima la ñu taqoo te mooy damir ja toujours na dëppoog li koy firi bu dee ci mu benn damir mufrat nay mu mufrat bu dee muzakkar nay muzakkar wala mu annas wala mu doon te itam bu fekkee um dala kenn du ko xadaf nag du dëgg niki tey nga ni ka yuxsinaani wa yusi ubnaaka wa qad baga wa tadaya abdaaka dégg nga léegi nga ni yuxsinaani yuxsinu dana def lu rafet wa yusiu dana def lu ñaaw ibnaaka sa ñaari doom sa xam nga mën nga ni yuxsinu ibnaaka mën nga ni yusiu ibnaaka ndax feel ju jëm ci faayil jay mbooloo wala kenn du tee moog feelu ni nga naan daraba zaydun ngay wax daraba zaydaani mën ngeen daraba zaydun du dëgg waaye koo jëfloo li waa basra tànn ku gën kee jege du dëgg yu siiw dana def lu bon ibnaaka sa ñaari doom seetal yuxsinaani nag nga dal di indi alifu ñaar nga dellu ci moom mi nga jëfloowul nga jox ko damiru li ñuy xëccoo yuxsinaani wuyu siiw ibnaak su fekkoon ni yuxsinu nga jëfandikoo da nga naan yuxsinu wayu sii aani ibnaak wa mu dox safaan ba def loo bu njëkk ba waqat baxaa bew na waatada yaati jëlgati nañu waqat baxaa abdaaka sa yaari jaam yi waatada yaati jëlgati nañu gis nga alifu ñaar gi mu ko jox yox si naa nit la ñu xañoon jox nañ ko damiru ñaar fii nag bu ñaareel bi bu bu njëkk bi la ñu xañ dégg nga waxat baxaa lañ jëfan maanaam bu ñaareel bi la ñu xañ jëf moo tax ñu jox ko alifu ñaar ni bu fekkee ne ñaari fi'al yi doon def tanaazo bu jëkk bi moom nga niinal moom nga xañ jëf ji bu ñaareel bi moom nga ko jox nee na kon wal bu fekkee damiru rafa moo ca jokk ci boobee nga nga joxul jëf ji bu jëkk ba kon bàyyi ko kenn du ko xasaf ndax bokk na ci sart yi waltazim maltaziman lu ñu warlu na nga ko warlu mooy kenn du ko xadaf ndéem damir ja ju rafaa la amma bu dul damiru rafaa nag ni ki fadla bu ñu nasab la te fekk bu ñaareel ba nga jox jëf ja kon bu jëkk ba damir damir bi nga ko waroon jox na nga ko xadaf nag du dëgg na nga ko xadaf rek su fekkee xabar la nag xabar moom kenn mënu ko wacc waaye kon it bu mu ca jokk kon na nga bàyyi ba wax ji mat nga nga door ko andi ca àll ba moom la ni wala tëji bul dikkee ma awalin ànd ak amil bu jëkk boo xam ne xat uhmila niinal nañu ko jëfloowuñu ko wala tëji bul andi bi mudmarin ci damir baatu jaa bu ca baatu pee andi lay firi wala tëji bi mudmarin bul andi damir ma awalin ànd ak amil bu jëkk boo xam ne xat uhmila niinal nañu ko damir bi mut marin ci damir boo xam ne oohi la yàlla leen nañu ko li xayri rafin ci lu dul rafaa bu doon bu rafaa moom bàyyi ko ca waaye bu dee bu bu dul lu dul rafaa nag da nga koy dindi ma ngi mel ni soo nee dara boo bëggoon ne dama dóor naa Zayd mu dóor ma nga bëggoon ne darabtu Zaydan bëgg it ne daraba ni Zaydun su fekkoon ne bu njëkk bi nga jëfandikoo loo nga ne kon da nga naan daraba du dëgg bu fekkoon bu njëkk bi nga jëfandiku loo da nga naan daraba ni Zaydun su ko defee nga ni wa darabtuhu nga ne daraba ni wa darabtuhu Zaydun kon bu ñaareel bi moom comme moom moom la ñu jëflawul du tee moom damiru nasab bi mën na ci jokk waaye bu doon bu njëkk bi nga xam ni da ngaa bëgg a jëfandikoo bu ñaareel bi bul wax ne darabtuhu wa darabani zaydun nga xam ne darabani moo rafaa zaydun déet kon xoo ji dindi ko ne rek nil rek darabtu wa darabani zaydun du dëgg su ko defee kon xuwa ji mu nëbb kooku sax mooy cheikh bi ma leen doon wax ni na ngeen ko defaat ci ariste bi xuwa ji mu nëbb fu mu dellu du dëgg ci Zayd la dellu te Zayd lu ñu nasab la kon ma foon la léegi kon fàddala la te it moo mujj la san warut bëtan su ko defee kon boo nee daraba daraba da boo nee daraba wa darabtu Zaydan daraba nii wa darabtu Zaydan soo ko waxee kon huwa ji daraba nii nëbb ma nga dellu ci Zaydan mais te kooka ma foon la te dafa mujj kooka kon loolu la la ni woon ba yajuusu fi tanaasu buntu tanaasu moom loolu dagan na ci léegi dami huwa ji di faaylu dara ba mu nga dellu ci zaydan mais di mafoolu dara bay ñaareel moom la ni wala taji bul indi bi mu marin uhila li xayri rafin ci damir joo xam ne dafa dañ ko yellale lu dul rafa waaw bul andi bi mutmarin ci damir joo xam ne uhila li xay rafin ma awalin di ko booleeg amil ju jëkk joo xam ne xat uhmila dañ koo niinal ci jëf kon nooy def mu ne na nga seet bu fekkee ni xabar la bu ko xadaf wàcc nang waaye nag na nga ko buux ca mujj su dul xadaf nag dindi ko rek niki tey nga ni darabtu du dëgg wa darabani zaydun waaye bul ne darabtuhu wa darabani zaydun lu mel noonu nag bu amee ñu ni kooku naadir la te itam shaad la ni ki tey ida kunta turdihi wa yurdika saaxibun dégg nga fa kun dégg nga ida kunta turdihi wa yurdika saaxibun jihaaran fa kun fi lxaybi axfad lil wuddi turdihi damir jooju dañ ko waroon na xadaf nag dafa waroon rekk ni ida kunta turdi wa yurdika saaxibun dafa bëggoon i boo nekkee di ko tur di ngay kontaan loo saaxiban wayur di ka te di la kontaan loo saaxibun léegi nag bu ñaareel bi lañ jëfandikoo damir bi ñu waroon koo jox bu njëkk waaye nag dañ ko waroon xasaf waruñu koon tudd ndax du xabar du dara amma moom la ni bal déet bul ko andi booleeg bu fekkee ne bu njëkk bi moom la ñu jëfloowul bul ko booleeg damir bu dul bu rafaa bu rafaa nag ba ko ca waaye bu dee bu dul bu naasab moom dindi ko bal ilsam taqool xadfahu xadaf ko wàcc in kaan in yakun bu nekkee damir ja xayra xabarin doonul xabar ni ki di buntu doonul buntu vann ak yooyu su dee buntu xabar wa axiran hu mujje ko in yakun su nekkee huwa moom alxabara di xabar du dëgg ni ki tey boo ne zanantu zaydan aaliman wa zanna ni zaydun aalimun du dëgg kon kon nag zeydun alim mubtada xabar la woon kon alim xabar la woon ci cosaan kon nag su dee damiru nasab jokk ci amil ju jëkk ju ñu xadaf bu mu tax nga mën koo xasaf wacc ndax umda kenn du ko xadaf waaye na nga koo mujjal du dëgg nga ni zanna nii wa zanantu zeydan aliman iyaahu seetal iyaahu moo doon mafulu zanna nii da nga bëggoon ni zanna nii zeydun aliman du dëgg waaye nag wa zanantu zaydan aliman moom zaydan moo zanantu ju mujj ji moo jëf ju mujj ji damiram ji nasab la ndax mooy xabaram xabaru zanna dégg nga mafoodu ñaareelu zanna xabar la woon ci bu njëkk léegi nag kon xabar kenn du ko xadaf nga ni tey zanna nii wa zanantu zaydan aliman zanna nii ana mafoolu ñaareel mooy iyaahu ji waaye na mujj zanna nii wa zanantu zaydan aliman moom la ni ilsam taxool xadfahu xadaf ko in lam in yakun su nekkee xayra xabarin doonul xabar niki nga ni darabtu wa darabani zaydun wa wa axiran mu mujje ko in yakun su nekkee huwal xabar nga tey nga ne zanna nii wa zannantu zaydan aliman door ni iyaahu waaye iyaahu doo ko sësaleeg zanna ni doo ni daal zanna niihi wa zannantu zaydan aliman déedéet kon na nga ko xadaf soo ko xadafee su feccee iyaahu lay doon kenn du ko wàcc ndax umda la xabar la na mujj aywa mu ni nag ba tey wa adhirin yakun damirun xabara li gayri ma yutaabiqu lmufassira naxwu adunnu wa yadunnaani axaa zaydan wa amran axawayni fi raxa xam nga dañu bokkoon ci sart yi ni waltazim maltusima démb na nga warlu la ñu warlu loolee nag mooy toujours kon bi nga wàcc da bi nga jëfloowul da nga koy jëfloo ci damir ju dëppoog la ñuy xëccoo ci ngóor gi ci jigéen ji ci kenn ki ci mbooloo gi du loolu ci sart ya la loolu la ni nag wa adhir na nga andi ismu zahir in yakun su nekkee damirun damir ji nga waroon a delloo ca la ñuy xëccoo su fekkee dafa nekk xabaran xabar li xayri ma yutaabiqul mufassira ñeel boroom xabar ja dëppoowul ak li war a firi damir ji ndax xëy na kee kenn la kee di ñaar ah kon dëppoowuñu kon fa nga waroon a def damir faf ko def li si mu zaahir rek kon naxwu azunnu dama jortu zaydan wa amran axawayni azunnu dégg nga moo ngi wa yazunnu ni zaydun wa amrun kon looy wax azunnu nga jëfandikoo azunnu zaydan wa amran axawayni wa yazunnaani ñu joortuma ñoom ñaar da nga mën a wax ni hum hima doo ko jox damiru huma ndax mu dellu ci zaydan wa amran ndax kon mu dëppoog ñoom waaye xabar la kon est-ce que dana dëppoog boroom xabar ji ndax doo ni ana zaydun wa amrun mënoo ni ana huma déedéet damir ñaar du dellu ci kenn kon nooy def indi lismu zaahir bi ndax soo ko defee lismu zaahir dana mën a dëppoo ak lii boroom xabar ji du nga ni ana axun du dëgg azunnu nëbb na ana axun kon dëppoo nañu te wuute gi mu wooteeg zeydun wa amrun du ko wàññi dara ndax lismu zaahir aajowul lu ko firi du ñu naan ma ngi axan ma ngi dellu ci seydun ak amru loolu damir a koy def kon nag waccal damir ndax doo man ni soo ni woon tey azunnu zaydan wa amran axaway ni wa yazunnaani hima hima ji dëppoog zaydan ak amrun waaye mooy sa xabar yow mi ni ana doo man doo man ni ana axawaani doo man ni ana axawaani kon te soo soo dëbb gee mu dëppoog yow nga ni azunnu zaydan wa amran axaway ni wa yazunnaanihi def ko damiru kenn kon it mu dëppoog yow waaye kon lii firi damir ji te mooy ñaar lañu kon luy pexe waccal damir def ko faf li ismu zahir kon fa laa yaduruhu lmuxaalafatu li annahu ismu zahirun ah su ko looloo tax nga ni azunnu zaydan wa amran axaway ni wa yazunnaani axan waaye boo ne wa yazunnaanihi mu dëppoog yow du dëppoog zaydan wa amran soo ne wa yazunnaanihima mu dëppoog ñoom du dëppoog yow kenn kon looy def def ko li sima zahir dégg nga falaa yaxtaaju li maa yufassiruhu falaa yaduruhu lmuxaalafatu mooy naxwu adunnu wa yadunnaani axaa zaydan wa amran axawayni fi raxa maanaam mi mooy maa ngi jortu ni zayd ak amr ñaari mbokk la ñuy doon ci jamono naataange ñoom it ñu ngi ma jortoo ma di am mbokk ci jamono naataange léegi kon bul wax wa yadunnaani hi bul wax wa yadunnaani hima wàcc ko indi li sima zahir nga ni wa yadunnaani axan rek mu jeex mafoolul mutlaq mafool al mutlaq mu ñu boyal turam nga xam da nga naan mafool dong nga ko mën tudde sa kon nag mafool yaar la mutlaq ak muqayyad muqayyad imma bil ba'i mafool bihi wa imma bil laami mafool lahu mafool lahu nag danañu ko wax mafool min ajlihi ni ki xumtu ijlaalan li saydin wala muqayyad bi maa ni ki mafoolu maahu ni ki jaa al amiru wal jaysh wala bi bi fii mafool fii kooku mooy zarf yooyu ñeent ñooy mafoolu muqayyad yi ah maanaam mafoolu mutlaq nag moo mel ni soo nee darabtu darban rek darban mafoolu mutlaqan dégg nga nga xam ni masdara ca doon cosaan nag waaye masdar am na yu koy remplacer yooyu nag lay jàngale mu ni almasdaru smu maasi wa zamaani min madluulayil fi'li ka amnin min amin nee na almasdaru masdar ismu maasi wa zamaan mooy turu la bokkul ak jamono ja min madluulayil fi'li ci yaar yi fi'l di tegtale bi wad'ihi laa wax fi'l yaar lay tegtale bi wad'ihi tegtale na ñetteel biltizaamihi lu muy tegtale bi wad'ihi ab xew-xew xadas maanaam jëf ji darb bi xew loolu ab xew-xew la lu mu koy tegtale aale lu ñaareel loo xam ne fokk tërul feel bi indi ko tàng bu mu xew ndax soo nee dara ba fokk yóbbaale na ni tàng bi passé na soo nee yadri bu fokk nee na tàng bi passé gut léegi la mbaa ëllëg yooyu yaar la feel di tegtale wan an zamaan ak lu ca xew leneenu ñetteel li nga xam ne nag moom dana ko tegtale kii waxul loolu mooy iltizaam liltizaam maanaa dana tegtale bu ko def fokk mu tegtale bu dee fiil fokk mu des na ci xame ni am na waa ji ko def waaye loolu du ci war u fiil bi waaye yël yël yël samuhu yaar yi nag la wax ismu masdar ba mooy turu la dul jamono ci yaar yi fiil di tegtale bi wadihi du dëgg amma faayil moom tegtale na ko biltisaamihi rek kon daraba soo ci génnee soo ci génnee jamono fàtte tàng bi passé dara du dal doo dese lu dul darb darb àndul ak faayil àndul ak jamono du dëgg balaa ànd ak jamono nga ne daraba ah ñu ni démb waaw sa yadribu ah léegi ba ëllëg waaw way laa nga ne darb soo ci bëggul jamono da nga naan xasala darbun rek xadasa darbun waaw wa waaye su fekkee da nga bëgg ñu xam ki ko def nag nga tudd faayil su fekkee da nga kañ la bëgg nga tudd za nga nga def ko feel ne daara ba wala yadribu kon masdar mooy lu dul ismu zamaan ba ci li yaar yi feel di tegtale ci wad om laa wax niki laan am nin ak kóolute ñàkk a tiit min amina bo fi ci feel jooju amina ñàkk naa tiit diw maanaam wóolu nanu di ko ko firee amina xasala lahu amnun fi zamanil maadi amnu bi moo am fi zamanil maadi ci tàng bi passé nga boole xadas beeg jamono ji nga ni amina amina maanaam amnu am na ci tàng bi passé kon yaar yëpp amina ko andi moom la ni ka am ni ni ki am na moom àndul ak jamono mooy mooy masdar nag min xawli ka amina mii nga xam ni maanaam masdar maa ngi ci biir ak jamono jamu xew ci moom loog su ko defee bi mislihi aw fi'li na wasfin nusib nee na nusiba nasabe nañu masdar lan mafoolu mutlaq dégg nga masdar bu ñu ko nasabee mafoolu mutlaq la ah waaw ndegam dañ ko nasab ak xad xodoosu fi'il bi rek kat waxuma masdar bu ñu nasab pour mafoolu bihi kat nga ni shahadtu fekke naa darba zaydin li amrin dóor ga zayd doon dóor amar darba jooju kenn du ko liraabe mafoolu mutlaq kat mafoolu bihi la ñu koy tudde ndax da nga ni fekke naa loolu wuuteeg darabtu darban kooku masdar la mafoolu mutlaq la mu ni kon nusiba nasabe nañu mafoolu mutlaq masdar bi mislihi ci moroomam fa inna jahannama jazaaukum jazaau du masdar la moo nasab jazaan ji ci kanam fa inna jaza jahannama jazaaukum jazaan mawfuuran jazaan mawfuuran mafoolu mutlaq la ana lu ko na masdar moomu lu ko nasab mafooli mutlaq xanaa meneen masdar bi misli mooy mu ni nusiba bi mislihi aw fiilin wala fiil looloo gën bare nga ni jazaytuhoo jazaan darabtuhoo darban aw wasfin wala wasaf ni ki wa safaati safan dégg nga safaat ismu faayil la di ja ñu jaww ko jam muannas saalim ma wala nga ni sax zaydun daribun darban shadida dégg nga aw wasfin maanaam masdar dana ko nasab aw fiilin wala sifa ni ki ismu faayil yooyu mën na ko nasab nusiba al masdaru bi mislihi wala bi fiilin wala wasfin wa kawnuhu nekku masdar aslan di cosaan li haadayni ñeel ñaar yii nu wax fiil ak sifa masdar doon seen nekk di seen cosaan loolu de untuxiba tànn nañu ko ñu mazhabu naxwi yi nay waaw li ñu tànte mooy mazhab waa basra ni wal masdaru xam nga mulxat li ram ni wal masdarul aslu wa ayul asli wa minu yaasha istiqaaqul bi kon mooy cosaan ah ama ko fa nee ñu dégg nga fin lay cosaan ca la ñu jële masdar ndax da ngay wax darabtu darban waaye doo ne darban darabtu waaw waaw ne nee ñu nag atee naxwu daal nee ñu waa basra ci moom lañ ciy jiital ah nee ñu atey tasrif nag waa koofa lañ cay jiital waka tawkiida naw naw an yubiinu aw adat ka sirtu sayratayni sayra di rachad masdar nag yubiinu dana biral léeg-léeg tawkiidan feddli ni ki nga ni darabtu darban nga xam ne dolliwul dara ci maanaa darabtu ndax yow soo ni woon darabtu yem ca luy maanaa xasaltu darba lu mooy darabtu kon darban ji yokkul dara ci maanaa darabtu lu dëgg waaye nag dëgëral na ko maa mel na danga ni dóor naa bu wóor a wóor waaw darabtu darban loolu rek la waaye yokku ko daf koo dëgëral kon tawkiit la aw naw yubbiinu dana firal moom masdar tawkiit wala nawiya du dëgg nga xam ni nawul fiili la masdar mi di kile aw adat wala li mu amini feel ya ñaata yoon la am ba tey masdar mën na dikk di biral loolu seen misaal surtout dox naa sayra tey ni ñaari dox du dëgg aywa kooku adadu masdar ma sayra tey ni ma foolu mutalaq la ci surtout moo tegtale adat ba waaw surtout sayra tey ni waaw du dëgg soo noon surtout sayra tan ah ma foolu mutalaq la waaye kon benn la tegtale nga ni sayra tey ni ma foolu mutalaq la waaye ñaar la tegtale wala mu dox naw du danoon naw aw naw an ni ki surtout dox naa sayra di rachadin dox comme doxu boroomu njub naw ula mina sayr du dëgg doxinu nàngam ak doxu nàngam ah yërëm naa ko yërmandey way jur nang kooku masdaru naw yi la ndaxte li an sayra di rachad naw un mina sayr yeneen sayroo ngi fi yu dul sayru di rachad sayru zil xata i sayru zil dalal kon maf masdar daal dana yubbiinu dana biral tawkiidan feddali boo nee darabtu darban wala naw an ni ki boo nee sayru sayra fulaani si sayra zi rachadin dégg wala dégg nga aw naw an wala waaw aw adadan wala lim ni ko surtout sayra tayn wa qad yubbi yanubu anhu ma alayhi dal ka jidda kullal jiddi wa frahil jazal wa qad yanubu anhu anhu mën na masdare mën na remplacer masdar ci lan atteem te mooy nasb bi alal mafuliyatil mutlaqa nasab ko ci kaw mafoolu mutlaq gi leneen lu dul masdar mën na koo remplacer loo xam ne tegtale masdar wa qad yanubu mën na remplacer mas anhu ci masdar mën na ko remplacer maa loo xam ne dal la dafa tegtale alayhi ca masdar ni ki boo nee moo xam kull la dégg nga wala baad wala sax lu mu bokkal maana ñu di ko wax mafoolu al maana bi ñu masdaru maana bi ni ki boo ne jidda farlul kullal jiddi léegi kullal lu ñu ko nasabe mafooliya mutlaqa dafa remplacer jiddan du dëgg jadda farlu na wala nga ni jidda fiilu lamar farlul jiddan ak farlu au lieu nga nasa kulla dikk remplacé ko nga ni kullal jiddi gépp ko farlu kon baatu kulla mafool mutlaq am naa jiddi mii moom ma mudaaf ilayhi la léegi rek waaye kulla moon tax di wax du dëgg tegtale na amil ja ndax da nga ni jidda farlu na kullal jiddi gépp farlu du dëgg wala lu ko tegtale ci maana wafrax bégal al jazala bég ni ki jalasa qu'udan jalastu qu'udan ifraxa farixa ak jadi la benn lañ farixa bég na jadi la bég na su kon nag soo ko nasabalee kee mafoolu maanawi masdaru maanawi la ifrax bégal jadalan am mbég wama wama li tawkiidin masdar ma nga xam ne dafa dikk di feddali amil ni ki darabtu darban fa waxit kon da nga naan fa waxit wéetalal maa masdar ma nga xam ne li taw kii din dafa dikk pour dëgëral amil ja rek abadan faw bu ko tasniya bu ko jàmm waxal darabtu darban rek wasanni tasniyaal xayrahu beneen bu dul moom wala wajma jam ko wala afrit ber ko du dëgg kon bu fekkee ni nawiya la mën nga mën nga ni darabtu duruban ay dóor ay xeeti dóor maanaam an waa an min a darb kon kon boobu mastar dikkul pour feddali amil rek su doon feddali feel ji da nga naan darabtu darban dóor naa bu wóor a wóor kon darban nay nay kii amma bu dee naw nga ni darabtu duruban dóor naa ay xeeti dóor du dëgg wala adadi darabtu darabaatin wala salaasa darabaatin kon mastar nawi wala adadi wala li tawkiid ko bu tawkiid bi nañu ko bàyyi bu ñu ko tasniya bu ñu ko jamoo amma boo xam ne bii budul moom la te sànni jamoo ko nga ni darabtu darba tey ni du dëgg wa waj ma jamoo ko nga ni darabtu darabaatin ay dóori dóor wa afrit wala nga ber ko bu la neexee wa xadfu aamilil mu akkidim tana wa fii siwaahu li dalilin muttasi muttasa wa wam wam wamtanaa terewu na xadfu aamilil muakkadi xadaf muakkidi xadaf aamilu masdar moo xam ne fedd lee ko taxoon a dig aamilam te mooy fiil ji koy nasab kooku da nga xam ne terewu na ñu di ko xadaf darabtu darban dóor naa bu baax a baax waaye kenn du xadaf darab aamil ji duñ ko xadaf du dëgg ndax yow dafa dikkoon fooyooy fi yow ba nga di ko dëgërale masdar kon nag amilam bu ko xadaf di fi bàyyi darba di kese wa fii siwaahu bu dee ludul masdar mi fedd li nawi la wala adadi ah kooku xadafam muttasaun lu ñu daganal la li dalilin su amee dalil bu ko tegtale alla mën mun maa aatin badala min fiilihi ka nadlani la kan dula xadaf aamilu masdar fiil ji ko waroon nasab nee na xatmun lu war la maa aatin ànd ak maa masdarin aatin ànd ak masdar muy aji ñëw badalan di remplace min fiilihi ci fiilam jooju ñu xadaf ndaxte badal ak mubdal minhu du ñu leen boole ci que du ñu andi comme masdar mi dafa remplacer fiil ji nee na kon fiil ji dañu koy xadaf niki lan nadlan ak fëkk maanaam fëkkal nadlan fëkkal kon undul nadlan duñu ko boole gannaaw nadlan dafa remplacer undul su fekkoon ni masdar mu akkit li amilihi la da koy feddali mën nga ni darabtu darban undul nadlan waaye léegi nadlan ji bi maanaa undul la nadlan lëz ba nga xam ni ma ngi mel ni ki undul fëkkal ci way ka doon wax ida ida ida alha naasa xawma jullu umurihim fa nadalan surayqul maala nadala saali bi ne kooku surayqu waay la waxal ju mu ko naan bu nit ñi nekkee ci seeni mbir ba talatuñu alal fandul fëkkal yow al maala nadalan mu ne fa nadalan rek undul jëkkoon duñu ko andi ndax moom la nadalan remplacé moom la ni ka nadalan niki nadalan lëz ja nga xam ni kandul ma ngi mel ni undul ci bay baytu woo ala xiina alhannaasa jullu umurihim fa nadalan zureyqul maala nadala saali bi maanaam fëkkal alal ja yow zureyq yaa zureyq ni ko ni ay saalab di fëkk nadala saali bi wa ma masdar ma nga xam ne li tafsilin dafa nekk di tàqalee aqibatu ma qablahu ni ki fa imma mannam baadu wa imma fidaan maanaa kooko dañuy xadaf aamiluhu aamilam yoxsafu dañu ko xadaf xaytu anna fu mu fi feeñe aqibatu ma qablahu lay tafsil bi maanaa fa shuddul wasaaqat dëgëral leen yeew ba fa ida asxantumuhum fa shuddul wasaaqa aywa loolu nag fu mu aamil ji mooy shuddul wasaaqa kooku nag fu muy yemi masdar mi moo tafsil mujj ga maanaam imma tamun noona man nan yeew leen bu dëgër gannaaw ga nag fa imma tamun noona man nan ngeen jéggal leen noonu bàyyi wa imma benn tuf doona fi daa an naa ngeen jëfandikoo njot imma man nan wa imma fi daa an kon tamun noona ja ak tuf doona ja dañu koy xasaf wa maa li tafsilin masdar ma nga xam ne dafa dikk pour tàqat lee mujj la ko dawlu woon ci amil ndaxte man nan wa fidaa an moo tafsil aqibatu shaddul wasaaq te fu shuddoo dëgëral leen alwasaaqa yow bi ngeen di yow yëfar yooyu ngeen jàpp fu mu mujj fa imma benn benn te mun noon a man nan wa imma benn tuf doon a fi daan kon masdar mii dafa li tafsili aqibati shaddil wasaaq kooku kon amilam day feeñ ah day asafu yaamiluhu amilam yuf safu kenn